Caaroy am na buuju maa ne foofu la ñuy dem buuju foofu la ñuy dem wut bagage bu dee dañoo dis doroon boo xam ne mbëtër yi soxla nañ ko dañuy jéem ñaan suñu parents yi mu may ñu ñëw jënd mbëtër yi dindi mbëtër yi def ko si avion mun naa cee defar nag lu bëri comme ça camion oto doroon avion ak yeneen matière technologique yi damay toog am inspiration bu ñuy dem raay nii di wut bagage camion bu rombee bu ñu ko disee mu gaare dañuy dugg si suuf oto yi xool pièces yi na lañ ko defaree bu ñu ñëwee teg bagage yi commencé créer avion dañuy jaat ci kaw bu ñu romb nii di dem a nga taxaw xool ko def ko photo visuel ñëw di ko defar par pièce pièce el yeeg boîte beeg yëpp affaire technologique xawma ci won bu baax non dara ci la commencé defal ci findi feeri amuloon mbëtër ma commencé def ci carton yi kii carton yi simple bo la laalee ndox day day day yak ci la commencé def ci carton yi ma commencé té defal inspiré dougal ci moteur rek lamp avion la matière protection bi nek ci kaw carton plastique la moteur yi moy dynamo yi mooy si ëpp drone la jóge lampe yi tam ci drone la jóge mais batterie batterie am batterie nek ci biir ñaari batterie la ben bu ne 3,7 volts la ci ki la jóge ordinateur batterie ordinateur premier contact bi nek ci kaw moy tal moteur yi deuxième bi si suuf mooy pour lampe yi tak di clignoter électricité si drone la jóge bi camion la camion poids lourd même même matière bi tamit ñoo bokk carton plastique la bii bu bula bi mooy carton plastique mais bu ñuul bii nii ci kii bi ci valise la jógee paroi valise foofu la nekk. am na baaro am ñu ci biir. siège siège yeeg accélérateur yeeg ci biir matière décoration. boo bëggee defar bopp kii yeeg siège yeeg lampe kii chauffeur bi danga nga koy imprimer da ordinateur nga am imprimante 3D boo ko imprimer mu imprimer la ko découpe laser mën nga cee defar form forme forme bu la neex bu bu dee ma soxla commande nii damay dugg si YouTube boo tapee commande bi nu mel nii dañ la ko andil mais amul Sénégal bitim réew la nekk doo ko mën a jënd doo ko